sakkanal essence du la taxa dafa première rek wuti ci ma xambaakol. essence du la tax def première rek wuti ci ma xambaakol moteur bi day yàqu boo bëggee moo yef defal deuxième am déet fi na yor ñaari jabar moo gën a yomb yor benn ci commande. yor ñett moo gën a yomb yor ñaar ndax yi bu ñu bu ñu yorul ñaar itam da ngay ñaareele ci lu xëy na loo xam safaan la en tout cas yor yor ñett moo gën a yomb yor ñaar moo gën a jërëjëf Oustaz Aliou Sall maa ngi leen nañu ci waxtaan wi maa ngi leen jaajëfal yéen tamit gërëm alaaj Njogu gërëm euh, mbokk yi ñu doon topp ci subaak léegi ñu yendoog jàmm